واختم لنا بالخير والسعادة والحسنى وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين نيجي نواتي سنجتا يبنتيل في الشرح المتواضع على منظومة حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع muy بي bi nga تيربو بركة bi تيربو أمصلو barkeel la di Eh, alqiraatu saba juróom-ñaari eh, njàngin yu wér yi nga xamante ne bi mi ngi bàyyi ci yenant bi sallallahu alayhi wa juga ci jibril juga ci sun boroom al imaamu bi gisoon nañ ci sunu jotaayu bi mujj amoon nañ fukki bayit ak juróom-ñeent ci téere bi tey ji ñu war a tàmbalee ci ñaar fukkeelu bayit ñu ngi fi borom تيري bi di wax mu ne jazallahu bil xayraati anna a'immatan lana naqalu فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته وعلومه من وقت بيدي ci نجسنا yooyu di dugg ci li nga xam ne mooy li ko tax a jug mu tàmbalee ci indil ñu ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy alqurra wala bokk aimmatul qurra assaba waaye mu tàmbalee ko ci ñaanal leen ndaxte ñoom ñoo ñu indil alquran mel ni ñun dañoo toogoon ci eh, ña nga xamante ne bi ñoom ñoo ko doon jàngale kon buñ jotee ci alquran alquran ju set joo xamante ne bi dafa mel ni comme ni ko saxaaba yi doon jàng jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële ko ci jibril buñ jote ci al alquran comme noonu ginnaaw yàlla yàlla mi ngi ko jaarale ci kilifa yu mag yi nga xamante ne ñoom ñooy njiitu jàngalekatu alquran yu mag yi ñoom ñooy sangi jàngalekatu alquran yu mag yi mu tàmbalee ci di ñaanal mu ne jazallahu yal na fay bil xayraat ci ay yiw yu bare bare yal na yàlla fayal ñu ay immatan ay njiitu yoo xamante ne bi ay njiit yoo xamante ne bi naqalul qur'aana lana ñoom ñooñu toxalal al qur'aan indil ñu ko jazallahu yal na yàlla fay anna walis ñu bil xayraat ci ay yiw a immatan ay sangi njiit yoo xamante ne bi naqalul qur'ana lana ñoom ñoo ñu toxalal alqur'an azban ñu toxal ko toxalin wu neex wasalsalan toxalin woo xamante ne bi toxalin bu yomb la waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen defal aw ku leen defal njëkk na ngeen ko fay wala ba ngeen ñaanal ko boo ko waxee ni ko ku la defal sa mbokk bu la defalee njëkk wala mu defal la teraanga nga ni ko jazakallahu xayran loolu mooy kon àgg nga ci fa nga xamante ni bi fa nga war a àgg moom ci sant ko ak tagg ko yiw gi yàlla nag moom kenn xamut nu mu toll sun yiw suñ boroom kenn xamut nu mu ndax yàlla moom dara am tuutiwul léegi nag ñu gis naa imaamu Shaatibi mi ngi tàmbalee ci ñaanal ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo ñu indil alquran nga xamante ne bi seen liggéey lépp leen la woon ci kaw suuf mooy jàng alquran jël seen dund lépp ñu jaay ko seen noflaay yépp ñu jaay ko sonn lool jot ci alquran ci anam yoo xamante ne bi anam yu doy waar la yoo xamante ne ñëw na ci kutubu mu tàmbalee ñaanal leen jazallahu bil nañu yàlla fayal aimma yoo xamante ne bi ñoom ñooñu toxalal alquran indil ñu ko gis na foofu baatu naqlu la jëfandikoo naqlu mooy loo xamante ne day ànd ak amaana gu mat sëkk dara du ci yokk dara du ci wàññeeku loolu moom mooy ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy ay ima yi doon jàngale alquran niñ jote alquran noonu lañ ko inde ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko doon bind tamit dañoo sàmmanteeg ay ima maanaam dañoo sàmmanteeg lool ñuy tudde ak diqo sàmmanteeg tamit lool ñuy tudde al amaana kóolu tegu mat sëkk yokku ñu ci wàññiwuñ xaraf na mel nañ ko jànge la ca sew la ca dijj yokkuñu ca wàññiwuñ ci ak masque wuñ ko wàññiwuñ ba ci palaas yi nga xamante ne sax dafay am wuute nga gis ne eh, fii kii nii la ko jàng waaye ba mu demee ñëwaat na ci beneen place waaye place boobu jànge wu ko noonu yooyu yëpp dañ koo leeral yooyu incha allah dina leer ci biir téere bi al imaamu Shaatibi mu ne fa minhum bokk na ci ay imma yooyu nga xamante ne bi ñoom ñooñu toxalal alquran indil ñu ko bu duurun ay weer yoo xam ne sabaatun mat nañ juróom ne al bu duuru saba juróom-ñaari weer yooyu nga xamante ne bi seen liggéey ci kaw suuf ci àdduna dafa daj képp leeral àdduna bi mel ni weer ni muy leerala asamaan weer ni muy ci kaw asamaan nga xam ne foo nekk ci kaw suuf da nga koy gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay immatul qurra nga xamante ne ñoom ñoo doon jàng alquran wëlbati ko di ko jàngale di ko saare ci àdduna bi nee na ñoom noonu lañ mel moo tax mu tudde leen buduur buduur jamono la ci badr mooy ay weer xam nañ ne weer bu tolloo ci badr eh, te mooy mu toll ci fan ak juróom dañuy nekk ci digg asamaan si bala ko tamit leer nañ loolu la wax na nag ñoom noonu lañ mel xot tawasata dañoo diggu sama al ula asamaanu kawe ci seen xam-xam waaw xam-xam bu bari ah nee na dañoo diggu ci kaw asamaanu kawe wala adli ak tamit maanute maanaam ñoom fiñ àggoon ci maanute ak tamit fiñ àggoon ci xam-xam bu bari di ko tasaare ak tamit ragal yàlla nee na dañoo mel ni ay weer nim naan fang noonu tamit lañu meloon ci adna eh, bi noonu tamit lañ meloon ci biir moo tax mu ne ci leeraay wa malan ak mat mu ne nag bu duur sabaa yooyu te mooy juróom-ñaari weer yooyu nga xamante ne bi ñoom la nduróole al aimma ñi doon jàngale alquran doon jàngale qiraat di ko tasaare ci àdduna bi mu laha am nañu shuhubun ay shuhub shuhub eh, jamo la ci shihab maanaam ay ay biddiw la yoo xamante ne bi ñoom tamit danoo jële leer ci weer wi mooy biddiw yooyu istanaara sàkku na leer anha ci budur yooyu te mooy weer yi ba ba bi nag jël nañ seen leer ci budur yi maanaam biddiw yi biñ jëlee seen leer niitu ci euh, weer wu mag wi istanaara sàkku nañu leer fana warat bi mu tam bañ ñu daal di leeral sawaada duja ñuulaayuk lëndëm gi newoon ci àdduna bi ah dafa bëgg a bu duur sabaa yooyu te mooy juróom-ñaari weer yi nga xamante ne bii seen liggéey moo nekkoon doon jàngale ku ci nekk ah amoon nañ ay biddiw yoo xam ne dañoo ñëw niitu ci ñoom maanaam jël leer gi nekkoon ci ñoom ñoom tam luñ fa jógee ñu daal dem te saarawaat leer gi ñu jële ci eh, weer wi waaw ah, bu nag léegi bañ jëf bañ fa jógee daal dem te saara ci bi bi ñu yoroon wala boo xam-xam bi moom nañ jële ci albuduuru sabaa amee lëndëm gi nekkoon ci kaw suuf lépp daal di tasaaroo àdduna bi leer nañ ak leerum alquran loolu la wax ne laha am nañu ñoom budur yooyu suhubun ay suhub te mooy ay ay biddiw istanaara sàkku na leer anha ci juróom-ñaari buduur yooyu juróom-ñaari weer yooyu nga xam te ñoom ñooy aimatul qurra bañ sàkkoo ci ñoom leer te bañ jëlee ci ñoom leeruk alquran ñoom tam ban fa jugee fa naw warat leeral nañu sawaada duja ñuulaayu lëndëm duja a azulmatu shadida lëndëm gumet met waaw bañ fa jugee ñoom fekk àdduna bi lëndëm ñu daal di leeral sawaada duja ñuulaayu lëndëm gi newoon ci àdduna bi xatta tafarraqa ba lëndëm ga tasaaroo wan leer nañ kon albuduuru sabaata mooy juróom-ñaari qurraa yi seen seen liggéey moom moo nekkoon nan doon jàngale ñiñ doon jàngal ñoom ñoom la ñuy tudde ashuhub te mooy biddiw yi nga xamante ne bi ñoom ñoo ñëw jël ci ñoom leer bañ fa jógee leeru alquran gën ji ci ñoom tamit ñu daal dem daal di koy tasaare bañ ko tasaare àddina bi leer nañ loolu la bëgg wax mun nag wa sawfa tarahum xalsat nga leen a gis maanaam xalsat naa laa indil seeni tuuf tàmbalee ko ci juróom-ñaari buduur yi waaxidan baada waaxidi ne naa la indil seen tur kenn par kenn bu ko defee naa indil badru bu ci nekk kenn ku ci nekk maas nañ ne ànd naag ñaar min ashaabihi ci ay talaamidan te mooy ay dongaam yi nga xamante ne bi ñoom ñoo jële ci ñoom mutamassilan ñu taxaw jon maanaam daf laa bëgg a wax ne danaa la indil badru bu ci nekk ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy ay asxaabam te mooy ñi ñoom ñoo àndoon ak ñoom doon jàng ci ñoom alquran bañ fa jógee ñu dem tasaara ji ko ci àdduna bi xam nañ ne yaayante bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy jot alquran ci jibril daf ko doon jox saxaaba yi assaxaaba ridwanullahi taala alayhim ajmain ñoom tamit euh, biñ fi jugee maanaam bi fi yaayante bi sallallahu alayhi wa sallam jugee bokkuñu woon fuñ nekk fa am ñoo xamante ne bii ñi nga Shaam maanaam ku ci nekk dafa nekk dëkk bu sori léegi nag gi nga xam ne moom Euh, goxi goxi goxi lislaam yi te mooy dëkki dëkki islaam yi ñu di koy tuddee al amsar al islaamiya loolu moom moo waraloon ba qurraay bokk ñoon ay dëkk ndaxte ku nekk ña nga xamante ne bi ñoom ñooy say sëriñ la jàng ci ñoom ah ñoom bokkuñu fu ñu nekk bokk ñoon tam fu ñu doon jàngalee loolu tax ba qiraat yi dafa tasaaroo woon far ay dëkk ndaxte ku nekk saxaaba yi la nga jël ci moom ba ñu fa jógee dañoo dem tasaaroo ci àdduna bi ku nekk di jàngale fa nga nekk wa hakaza mu ne nag ñooñu nga xamante ne bi ñoom ñooy alqurraa ussaba ak ñi jël ci ñoom ta mooy seeni ruwaat taxayyarahum daf leen a tànn nuqaaduhum ñi leen doon segg xam nga daf laa waxoon ni la ay imma yooyu fa minhum mun la bokk na ci ñoom dégg ci na kon ndekate alqurraa alqurra maanaam ñi nga na ne ñoom ñoo doon jàngale qiraat yamul ci juróom-ñaar ñi kese loolu dañ koy dégg ci baatu fa minhum ndax dafa minhum bokk na ci ñoom loolu mooy kon dañ ci dégg ci ne kon dañ leen a tànn maanaam ñi nga xam ne moom la indi ci téere bi ah, mooy ñi nga xamante ni ñoom lañ ci tànn waaye am na ñeneen am na ñeneen ñoo xamante ni tamit ñu bari lañu tamit seen xam-xam gënte néew mukk ñi nga xam ñoom la indi fi waaye nag mën a ju téere bi moom juróom-ñaar yi la indi fekkee da ngaa soxla yeneen yi ci des nag boo demee ci yeneen téere di nga ko ci fekke incha allah taxayyarahum tànn na leen nuqaaduhum ñi leen doon segg dañ leen leen tànn ci kaw ay chart tànn leen ci kaw ay jikko tànn leen ci kaw ay eh, ay critère tànn leen tamit ci kaw xam-xam ak ragal yàlla moo tax mu ne taxayyarahum tànn na leen nuqaaduhum ñi leen doon segg kulla baare mi képp koo xamante ne bi dafa raw ay moroomam ci mokkal raw ay moroomam ci la nga xamante ne bi moom la jàng ci sëriñam mu raw ci ay moroomam ci mokkal ko xam ko boole ko tamit ñu tànn leen walay sa ala quraan yi mutaakkila ñu doon koo xamante ne bi daawuñu dunde alquran maanaam walay sa ala nekkul koo xamante ne bi dafay lekk ala quran yi ci alquran maanaam deful alquran rek mu nekk sababu maash am ñoom alquran dañ ko doon jàng di ko jàngale ngir yàlla daawu ñu ci wut fay jaawu ñu wut sax ngërëm boo demee ci tarjamat sayidna asim wax nañ ne moom ndeysaan yàlla daf bindoo woon mu doonoon koo xamante ne bi dafa néewoon doole lool sax néewoon kattan boole woon na néew doole ci wàllu yaramam wala woon tamit nekkoon sàqi la amul woon dara boole ko tamit nekkoon lafañ nga xamante ne bi pour mu dox anam met waaye ànd ak loolu lépp da daan tukki ci dëkk yi da daan tukki ci dëkk yi di fa tasaare ji alquran bépp dëkk boo xamante ne bi pare na fa bu ko jógee daal demaat ci beneen dëkk te loolu lépp da ko daan def te daawu ci daawu ci laaj dara ci ak fay wala mu daan ci wut dara ci ngërëm wala loo xamante ne bi ak cant lay doon kon ñoom dañ doon jàngale alquran bi wajhillah loolu la wax ne la eh, ñi nga xamante ne bi ñoom lañ tànn dañoo doon ñoo xam dañ leen a tànn ci kaw asaasu al itqaan wa dab te mooy la nga xam ne moom lañ jàng ci seen sëriñ boole ko tamit mokkal ko mi ngi mel ne rek ni nga xam ne ñi doon indil xadis yi noonu lañ leen tànn xam nañ ne bu ñuy wax xadis ki ci raw moom mooy al imaamul ci wàllu mokkal ak ci wàllu ragal yàlla naka doon tamit qurra yi noonu lañ meloon ci seen jamono tamit ci seen seeni moroom ñoom ñoo ci rawoon ci wàllu ragal yàlla ak tamit ci wàllu xereñal ak mokkal la nga xam ne moom lañ jàng ci seen sëriñ loolu la wax mun na taxayyarahum tànn na juróom-ñaari ñaar budur yooyu ak seeni ruwa dañ nee na tànn nuqaaduhum ñi leen doon segg kulla baadeen muy képp koo xamante ne bi raw na ay moroomam ci xam-xam ak ci mokkal walaysa ala quraan yi tey tamit nekkul koo xamante ne bi alquraanam mutaakilan daf ci wut lum am maandu ci wuta ab kon al ahrufu saba juróom-ñaari qiraat yi nga xamante ne bi moom moo wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci jibril yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ko saxaaba yi saxaaba yi ridwanullah jàngal ko seeni talamis ci taabiin yi noonu ba agsi ci aimatu sabaa te mooy ñaari qurraa juróom-ñaari qurra yooyu tam jox ko seeni ruwaat te mooy seeni talamis ñu jox leen ko ci tawaatur gu mat sëkk goo xamante nañ ko jële noonu lañ leen ko joxe yokkuñ ci wàññiwuñ ci mu ànd ak san sanat bu wér juróom-ñaari qurra yooyu ak juróom-ñaari ruwaat seeni tur tasaaroo na ci àdduna bi wa ñu doon ñoo xamante ni ñu siiw lañ tey tamit seen maandu te kenn am ci sikk sàkk nga xamante ni mboolem julli ñëpp bokk nañ leen wóolu ndaxte dañ leen a ak dëggu xame leen ak kóolute xame leen tamit mokkal ak tamit xerañal ak tamit njàng mu rafet la nga xamante ne moom lañ jëlee ci seen sëriñ loolu moom moo tax ba ñoom seen qiraat dafa tasaaroo ci mboolem àdduna bi waaw dafa tasaaroo ci mboolem gox yi nga xamante ne bii eh, jiilan baada jiil maas gu ñëw rek daf koy jël jox ko maas ga ca topp ñoom ñëpp ñu bokk ci ànd bokk ci dëppoo ba alquran leeram daj mbolam aduna bi nak nag mi ngi commencé di indi li nga xamne mom la digge won te moy mu indi ni juroom juróom-ñaari qurra yi ku ci nek ak ñi nga xamanteni ñom ñoo jàng ci ñom mu tambale ko ci al al imam al awwal wala bok al badr al awwal te moy al imaam naafi muy la fa amal karim sirri ki nga xamanteni bi mom moy borom secret bu tedd ba al karim sirri alkarimu sirr mooy ko xamante ne dafa amoon secret bu tedd ci bi ci gët ci parfum ba nee na kooku lan moo tax mu tudde ko alkarimu sirr nee nañ al imam naafi radiallahu anhu al imam naafi moom mi ngi nekkoon ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon fa jàngale jàngale na fa lu war a jege juróom-ñaar fukki at jàng na ci lu ëpp juróom al imam Naafi moom euh, kutubu taraajim ñu ngi nettali nee nañ moom dafa gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàng ci gémmiñam ba mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa di jàng ci gémmiñam loolu moom moo taxoon ba bu ma toog di jàngale fu waaye nekk ci jataay bi xetu parfum dafa fay ñu laaj ko ko yaay imam nafi ah. ndax boo toogee di jàngale ndax da ngay laal parfum bu neex taate kat parfum bi nga xamante ne bi xetu gëtt gi nga xamante ni moom la ñuy daj xetu gëtt gi nga xamante moom moo ñuy xeeñ dafa neex lool ñu ko ndax da ngay laal parfum boo toog boo toog di jàngale mun leen déedéet laaluma benn gët waaye nag dama gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa muy jàng ci sama gémmiñ foofu la ma xet gi topp moo tax mu tudd ko alkarimu sirr fi tib borom sekkere bu tedd ba ci parfum bi a bo ci gëtt gi neena koku kooku mooy naasa mu ni la naasa momu fa zaaka koku am naasa momu allazi ma ki nga xam ne ixtaara tànn na almadinata madina al munawara manzilan mu nekkoon wàccukaay maanaam fofu la fete won al imam naasa mo tax ñukoy wax ñu al madani naasa ta mom euh madina la nekkon madina la nekkon moom mi ngi bokk ci ulama u tabaqa arrabia dafa ñuuloon kuk al imam malik ibnu anas mi ngi bokk ci dongay imam nafi imam malik mooy borom Muwatta waaw moom nee na moom moo nekkoon kilifay nit ñi ci alquran a moom moo nekkoon imamu nas fil quraan hmm. mboolem masaadir mboolem téere yi nga xamante ni ñoom ñooy indil tarjamaay téere yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu indil euh, jaar-jaaru imam Naafi téere yëpp bokk nañu ànd ci ne imam Naafi jàng na ci juróom-ñaar fukki sëriñ ci taabiin yi bokk na ci ñi nga xamante ni jàng na ci ñoom Abu Jaafar Yazid ibn al-Qaaqa bokk na ci ay sëriñam Abdurrahman ibn Hurmuz bokk na ci ay sëriñam Shayba ibn Nasah bokk na ci sëriñam yazid ibnu roman bokk na ci ay sëriñam muslim ibnu jundub alhuzali juróom ñooñu juróom juróomi sëriñ yooyu nga xam ne bokk nañ ci sëriñ naafi ñoom juróom ñëpp ci ñett ñi lañ jàng ci saxaaba yi ñoom juróom ñooñu ñi ngi jàng ci abu hurayra ak abdullah ibnu abbas ibnu abdul muttalib ak abdullah ibnu ayyash ibnu rabia al maxzumi ñett ñooñu te mooy abu hurayra ak ibn abdullah ibn abbas ak abdullah ibn ayas ñoom ñett ñu ngi jàng ci ubay ibnu kaab ubay ibnu kaab jàng ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dañ ci dégg ci na kon naa sax dafa def tawaatu ba àgg ci yonent bi sallallahu alayhi al imam naafi nag ñi jàng ci moom tamit bari nañ lool bari nañ lool sax hmm, bari na ay talaamit bari na ay salaam yi di ci ñoom am na ñoo xamante ne bii eh, Madina lañ nekkoon am ñoo xam ne ñu ngi jóge woon Misra am ñoo xam ne ñu ngi jóge woon Sham am ñu jóge woon Basra am ñu ngi jóge ci ay dëkk yu bare bare bokk na ci talaamid imam Naafi eh, al imam Malik ibnu Anas bokk ci ay talaamidam nga xamante ne bii dafa jàng ci moom dafa jàng ci moom alquran naata tam jàng ci moom xadis mu jël ci moom muwatta nagoon tamit bokk na ci ay sëriñam bokk na ci ay dem xoolun ak warsh ñoom ñaar nag ñooy ñi gën a siiw ci ñi nga xamante ñoom lañ ñu indil ci ay talaamidam waate comme niñ ko waxee rek dañ leen a tànn ci kaw asaas yooyu nga xam ne moom lañu waxoon loolu la wax mun la wa qaaluunu qaaluun te mooy isa ibnu mina mu ne summa topp topp Osman ñu di ko warsh mun la ñoom ñaar bi soxbatihi ci ànd gi ñu àndoon ak al imam naafi ah te asala yéeg nañu njobbaxtanu maanaam yéeg nañu ba am al majd ar rafia tedd nga gu kawe tedd nga gu kawe googu xoolun ak warsh fan lañ ko jële xanaa bi soxbati ci ànd gi ñu àndoon ak naafi ah jël ci moom jël ci moom leerug alquran fale leen tedd nga ga toppe ba yowmal qiyaama gan tedd nga moo gën a rëy gan tedd nga moo gën a rëy ñu garde alquran ci saw tuur ñu ne riwaaye sàngam mooy riwaayat qaaluun an naafi riwaaye sàngam mooy riwaayat warsh riwaayat warsh an naafi ndax maj di mën na féete kaw loolu ku ne xam nañ loolu maj di mënu ko féete kaw loolu moo tax mun la ñoom ñaar te asala yéeg nañu ba àgg fu kawe kawe bi soxbati yi ci ànd ak moom ñu jële ci almajdar rafia tedd nga gu kawe kooku moom mooy alqaari al awal wala boog al imaam al awal moom mooy tamit al badr al awal ki ci topp moom mooy al imaam ibnu kathir ci la Shaatibi wax mun la wa makkatu makka abdullah abdullah fiiha muqaamuhu foofu moo nekkoon bërëb maanaam foofu la nekkoon foofu moo nekkoon saxukaayam maanaam daf laa bëgg wax rek ni la eh, moom moom makki la maanaam bu nekk daf lay indil dëkk ba mu nekkoon fa mu féetewoon waxoon nañ sàng ne saxaaba yi dañoo woon ginnaaw bi ñu jëlee alquran ci indi bi dañoo tasaaroo woon ci ay gox yu bari léegi nag ku ci nekk fa nga nekkoon foofu nga doon jàngale léegi nag abdullah ibnu kasir mi abdullah moom mooy abdullah ibnu kathir ibnu umar ibnu abdullah moom mi ngi bokk ci ulama u tabaqa althalisa mi ngi bokk ci alqura alkibar mi ngi judd ci atum fukk ak juróom ci gàddaay génn àddina ci atum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar muy la abdullah ibnu kathir moomu makkatu fiha muqawamuhu makka foofu la moo nekkoon saxukaay maam foofu la féete woon moo tax ñu koy tudde almakki bu ñu waxee almakki rek ci qurraay ñu ngi ci jublu abdullah ibnu kasir muy la moom kaasirul qawmi mooy ki nga xamante ne bi dafa dafa dafa not gaay daf leen a ëppale ci wàllu ngëneel ci wàllu ragal yàlla fu nekkoon ku ragaloon yàlla moo talaan doonoon koo xam ne ku kawele ci ay ngëneel muy la moom abdullah ibnu kasir rawa lahu rawa lahu jële na ci moom alquran ahmed al bazzi moom mooy raawiyam bu njëkk raawiyam bu ñaareel bi mooy muhammad moo tax mun la wa muhammadun muhammad moom mooy raawiyam bu ñaareel te mooy muhammad muhammad ku njëkk mooy ahmed al bazzi muhammad moom la ñuy wax kunbul waaye nag ala sanadin ci sanad te mooy waasita maanaam daf laa bëgg a wax ne la bazzi nga xam na moom mooy raawiyam bu njëkk ak tamit Qunbul ñoom ñaar jàngewuñu mubasharatan ci Abdullah ibnu Kathir waaye danoo jàng ci koo xamante ne bi jàng na ci Abdullah ibnu Kathir ndaxte qurraa yi dañu séddali ko ñetti xaaj dafa am ñoo xam ne seeni talaamiis te mooy seen ruwaat danoo jàng ci ñoom mubasharatan nga xamante ne bi amul ko dox diggante ak ak ak imaam bo qaari bi am ci ñoo xamante ne dafa am ñu dox seen diggante ak imaam bi yenn saa mu nekk kenn yenn saa mu nekk ñaar yenn saa mu doon ñett comme niñ koy gisee ci kanam léegi nag ki nga xamante ni moom mooy ki ci jiitu te mooy euh, euh, Abdullah ibnu Kasir moom ñaari raawiyeen te mooy Bazzi ak Qunbul ñoom ñaar jëlewuñ ci moom mubasharatan loolu moo tax mun na bu dee Naafi moom Qaalun ak ibnu Kasir dañoo jàng ci Naafi mubasharatan hmm. kan mooy Abdullah ibnu Kasir Abdullah ibnu Kasir ابن الجزري رحمه الله نينا عبد الله ابن كثير moom moo nekkoon imaamu naas fil qiraa bi makka neena moom moo nekkoon jàngalekat bu mag bi nga xamante moom moo féete woon makka ci jamonoom kenn xëccoowu ko moom moom moo fa tegoon tànk moom moo nekkoon kilifa nit ñi nekkoon seen njiit ci alquran moom ibnu kathir jàng na ci ñu baree bari bokk na ci ñaana jàng na ci ñoom alquran abu said abdullah ibnu saib al maxzumi mi ngi génn àdduna ci juróom-benn ak juróom-benn juróom-ñett ci gàddaay gi juróom-benn fukk ak juróom-ñett ci gàddaay gi bokk na ci ay sëriñam yaa xam ne tamit ibnu kasir jàng na ci ñoom abu saib bokk na ci ñoom tamit abul xajjaaj ñu di ko wax mujahid ibnu jabr mi ngi génn àdduna ci téeméer ak ñeent ci gàddaay gi kon ñaar ñoo ñooy ñi gën ci sëriñu ibnu kasir bu dee abdullah ibnu saib nga xam ne mooy sëriñam bu njëkk abdullah ibnu saib moom mi ngi jël alquran mi ngi ko jàng ci ubay ibnu kaab ubay ibnu kaab moom mooy sëriñam bi nga xamante ni moom moo ko jàngal ci ci topp mooy omar ibnu alxataab kon sëriñi sëriñi ibnu kathir mooy ubay ibnu kaab ak omar ibnu alxataab ñoom ñaar ci ñoom la abu saib nga xam ne moom moo jàngal alquran ibnu kathir abu sulaib moom mi ngi jël alquran mi ko jàng ci ubay ibnu kaaba ak omar bu ñaareelu mooy mujahid ibnu jabr moom mi ngi jël alquran mi ngi ko jàng ci abdullah ibnu abbas nga abdullah ibnu said abdullah ibnu abbas mi ngi jël alquran mi ngi ko jote ci ubay ibnu kaaba ak zeyd ibnu musaabit ñoom ñoo ko jàngal ubay ibnu kaaba ak zeyd ibnu musaabit comme niñ ko waxee sànq ñoom ñaar ñu ngi jàng ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu dañ ci ne kon qiraat ibnu kasir dafa am tawaatuf maanaam dafa jokk ba ci bi sallallahu alayhi wa bu ko defee nag ñoom ñaar ñi nga xamante ñoom ñooy ñi gën a fës ci ñi jàng ci ibnu kathir ma ahmed al bazzi wa muhammadun ala sanad ñoom ñi ngi jàng ala sanad ci koo xamante ne bii dafa jàng ci ibnu kathir wa huwa moom al mulaqabu moom la ñuy dàkkantele qunbula maanaam eh, muhammad moom la ñuy wax qunbul يقول نعم ناظر دفعنا على سند على بس دي أقنبون يوم دون جانجتي كو حمان تنبي دفع جانجتي ابن كثير كي جانجتي ابن كثير نحن ممو جانجل بس دي أقنبون موي أبو الحسن أحمد ابن محمد ابن علقمة و موم أبو الحسن موم مين جانجتي أبو الإخريط و أبو الإخريط موم نعم ممو جانجتي اسم عائل ابن عبد الله جانجتي ابن كثير جانجتي نكون am na waasita bu dox diggante bés eh, bi ak xunbul ki dox seen diggante ak eh, seen sëriñ bu mag bi tamay ibnu kasir mat na ñaari nit wala sax ñett ala ay xaal teewul moom qiraa bi nekk na qiraa mutawaatira comme ni nga xam noonu nañ ko leer noonu nañ ko leerala foofu ñu dem ci alqaari athaalis te mooy ñetteel bi waaw buñ koo xamante ni dafa gën a bëgg lu gën a yaatu pour xam ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo jële ci seeni qurra mën naa dellu ci kutubu tarajum bu dee bu dee basdi basdi moom imaam la woon fil qiraa maanaam ginnaaw bi seen sëriñ jugee bi mu génnee àdduna moom ñoom ñoo féete woon doon jàngale foofu ci màkk moom basdi ibnu jazari nee na mu xaqiq la woon mu xaqiq ab seggkat la woon doon segg mboolem xam-xam yi nga xamante ni bi moom lay gëstu da ko doon segg maanaam daawul def rek lu gis rek daal di jël da segg ba teg ko ci lu wér nekkoon tamit baabit nekkon ku mënoon a mokkal nekkoon tamit ku am xereñe ci xiraa bi nga xam ne moom la jëlee ci ibnu kasir nekkoon tamit siqa doonoon ku wóor ko xam ne mboolem boroom xam-xam yëpp bokkoon nañu mànkoo ci eh, kóoluteem ginnaaw bi nga xamante ne ibnu kasir génn àdduna moom moo féete woon yore kilifteefu jàngale ci màkka ci jamonoom moom tamit moo nekkoon mu azdinul masjid xaram nekkoon noddukat ci jàkka bi bu dee kun bul moom moom tamit ibnu kas moom tamit kaana imaaman fil qiraa nekkoon tamit mutqin waaw mashiixatul iqra te mooy jàngale alquran ci xijaas nee moom moo ko féetewoo woon nit joon jóge fu nekk ci àdduna di dem ci moom ngir jàng alquran léegi nag li tax ñu tudde ko am nañu ne li tax ñu dàkkantale ko xunbul ndaxte dafa bokk ci gaay yoo xamante ne dañ leen di tudde alqanaabila maanaam dàkkantal la boo xam ne dafa jëm ci ay mbokkam ñu dem ci al imam althalis wala boog al badru althalis al imam shaatibi ci la wax mu ne wa amma al imam almaziniyu sarixuhum abu amrin albasri fa waliduhu alala afaada ala yaxya alyazidiyi saybahu fa asbaxa bilcadbi alfuraati muallala أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا وقم موي الإمام الثالث الإمام الثالث تما البدر الثالث مما أبو عمرو البصري مم وحنا لا وأما الإمام المازني أبو عمرو البصري مم مم الإمام الشاطبي تبدأ المازني المازني نسبة لك maanaam تقوي koy dàkkante la qabilaam moom abu amr al ñaari raawiyam ñooy duur yi ak suus yi waaye nag ñoom ñaar te mooy duur yi ak suus yi jëlewuñ mubasharatan seen alquran jàngawuñ mubasharatan ci al imam al mazini waaye danoo jàng ci koo xam ne mi ngi jàng ci al imam al abu amr moom la shaatibi wax la الإمام المازني صريحه ما لم ينم من وجه صريح ما يقول هم أنت نبي درة نجام أمو تيره من لمم أبو عمرو أفاض ببلنا صوتنا سيبه خمخم ببربة على يحيى اليزيدي يحيى اليزيدي أبو عمرو دفو بريون خمخم لول تلب لفكم وقلون توالو نحو توالو حديث توالو شواهد lu ci nekk mokkaloon na ci lu ëpp téeméeri junni bayit naka doon tamit alquran nekkoon ci ku ci yéeme muy la nag moom afaada bëbbal na sotti na say baxu joxam bu rëy ba nga xam ne moom la ko yàlla joxoon ci xam-xam nee na daf koo sotti ala yaxyir yazid yi fa asbax mu daal di xëy nekk muallalan nekk wax ne day nandalaate bil azbil furaat ci ndox mu neex moom yaxya al yazid yi yaxya yaxya al moom nag moom moo jàngal abu omar ak abu shuaib maanaam kon duur yi ak suus yi ñoom ñaar ñi ngi jële ci yaxya al yazidi yaxya moom nag moom moo jàng ci abu amr al basri abu amr al moom mi ngi juddoo màkk ci atum juróom benn fukk ak juróom ñett ci gàddaay gi am na ñu ne juróom benn fukk ak juróom مي جن أدنى كوفة في العراق أتم تيمير أجرم في كنيان في قرداج أبو عمرو إمام لو ممونيكو إمام البصرة في, في, في نحو مونيكو أنت من مقرئ بو مقبو ما مفرون جانجل القرآن الإمام ابن الجزري وحنا كي ممنينا أبو عمرو ابن العلا نينا ممو قنونا خم في دك بيون نيكون مو فغنونا خم القرآن غنونا فا خم نحو أنو ندق لول أقرق يالا لول أك دينا جو خم انتني بفوقتك moom abu amr al al basri ay sëriñam dañu bari lool moom nee nañ moom moo ëpp ay sëriñ ci qurraa yi jàng na ci ñu bari lool sax jàng ci ay sëriñam yu bari am na ci ñoo xamante ne bi màkka ah, ay sëriñam am na ci ñoo xamante ne lañ la jàng ci ñoom am ñoo xam ne ngi jàng ci ñoom madina am ñoo xam ne jàng maam jàng madina jàng kuufa ak basra fu ci nekk amoon na fa ay siyux yu bare bari moo tax ñu ne moom aksarul qurraai siyuxan moom ak naafia naafia wax nañ ne moom jàng na ci lu ëpp juróom-ñaar fukki sëriñ ci taabiin waaye abu mi moom moo ëpp ñoo na ci ñoom sama maas gi nag buñ jàngee ci kenn jàng ci ñaar rek yaakaar ni dajal nañ téere yépp te fekk dañoo war a dañuy dal léegi abu amr moom jàng na ci ñii bokk na ci ay sëriñam mujahid ibnu jabr waaw waxoon nañ ko sànq ci ibnu kathir bokk na ci ay sëriñam abul aliya ñu di ko wax rafia ibnu mihran abul aliya moom nga xam ne moom mooy sëriñu abu amru mi ngi jàng alquran mi ngi ko jàng ci omar ibnu alxataab ak ubay ibnu kaab ak zeyd ibnu thabit ka abdullah ibnu abbas ñeent ñoo ñoom ñooy sëriñu abul aliya abul aliya moom nag moom moom la abu amru jëla alquran kon ñu dégg ci na kon qiraatu abi amr dafa def tawaatur ba àgg ci yonent bi saasam nekk qiraa bu wér doon loo xamante ne lu jokkula ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee nag ñaar ñi jëlee ci abu amr al basri ki ci njëkk mooy comme ni ko Shaatibi waxe mu ne euh, ki nga xamante ne bi moom mooy ki njëkk ci euh, ruwaate mi mooy abu omar ad duuri duuri wa saalihuhum abu shaibin ak abu shaibin ñu di ko wax suusi ñoom ñaar taqabbala nangu nañu jël nañu xam-xam bi nga xam ne moom moo nekkoon ci yaxya al yazidi moo tax mun la taqabbala ñoom ñaar ba muy day dellu ci abu omar adduri ak abu shaib ñoom ñaar ñoom ñooy rawiya abu amr taqabbala jël nañu anhu walis moom am jële ci yaxya al xam-xam bi nga xam moom la Abu Amr defoon ci moom su ko defee kon ñu yem foofu incha allahu taala jàng nañu ñetti imaam ku ci nekk jot nañ ci moom taarif buñ ñëwaatee incha allah ñu jël ñeneen ñeent ñi xam ne ñoom ñooy ñi ci jës wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin